yi sëriñ Moustapha si kàddu yi mu wax kàddu yu ñàkk teggin la mooy ci yonent yàlla yi yàlla tagg yonent subhaana yonent yàlla Suleymaan ak yonent yàlla Daawud yàlla ne ñii ñu baax lañ yàlla ne ñii ñu sell lañ yàlla ñii ñu ragal yàlla lañ yàlla ne ñii ñu dellu ci man lañ ah sëriñ Moustapha si ne déedéet ne lu yàlla wax du dëgg ne déedéet lu alxuraan wax du dëgg subhaanallah ñun de gëm nañ ni te ci la ñuy jaamu yàlla ci la ñuy dee mooy que ni li yàlla wax moom mooy dëgg képp ko juuyoog li yàlla wax li nga nekkul moom mooy dëgg yow yaa nekk ci caaxaan yow yaa nekk mooy lan mooy ci manipulation yow yaa nekk lan mooy kan ci parparloo yaa nekk ci réer yow yaa nekk ci réer ndax lan mooy que ni bind nañ ko ñaata ay mbir la ñu bind yoo xamante ni juuyoon ak jàngale alxuraan juuyoon ak yonent bi sallallahu jàngale jëlal exemple tey salaatul faatihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu ko wax mosu ko jàngale existé wul salaatul fatihi existé wul mooy ci benn xadis bu yonent bi jàngal san san loolu ku bëgg nag day jël def waaw waaye nag bul ko askanale yonent bi san san ne moom moo ko wax waxu ko te li gën a doy waar nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ñëw jox ko diw diw moo gis yonent bi sallallahu alayhi jahran mooy face à face yonent sallam daal di ko koy jox mais c'est illogique subhanallah ci illogique waaye tamit texte àndul ak moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax salaatul fatiha xamu ko alxuraan existé wul di fatiha baqara banaas amu fa fuñ ko bind ci benn xadis boo xamante ne bu daif la existé wul saxaaba yi yëpp kenn mësu ko wax saxaaba yi kenn mësu ko wax tàmmale ci ku ci ku gën ci saxaaba yi radiyallahu anhu muy Abubakar Siddiq bu ko mujjee saxaaba saxaaba yi mësu ko wax surtout saxaaba yi ñu ñëw juste après mës ñu ko wax ñeenti ngir yi imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi Ahmad ibn Hanbal kenn mësu ko ci wax donc ça n'existe pas te sax am na ay bind yoo xam ne dañu naan salaatul yi benn salaatul fatih moom moo gën junni moo gën 60 alxuraan 60 fois alxuraan xoolal ma kàddu kufri yi kàddu kéefar pourtant dañ ko bind est ce que loolu day tax ñu ne ndax bind nañ ko rek dëgg la c'est c'est c'est en fait c'est contre la vérité c'est pas de la c'est pas am ñeneen ñoo xam ne dañu naan ay kàddu yoo xamante ni yu doy waar l'islam nag moom tey Sénégal moom c'est la terre fertile loo fi woote am fi taal loo fi ay taalibe bokkaale am ay taalibe bidaa am ay taalibe xeex lislaam am ay taalibe mbubboo lislaam di xeex lislaam am ay taalibe subhanallah mbubboo di di di lekk alalu nit ñi ono de l'islam am fi ay taalibe mbokk yi jullit ñi yeewu leen avant ñuy dell avant ñuy dellu ci borom sant taala yeewul avant ngay dugg bàmmeel yow rek sëriñ du la fa fekk benn sëriñ du la fa fekk liñ lay laaj moom la ñuy laaj sa sëriñ ci biir bàmmeel naam duñ la laaj ci bàmmeel lu dul lii mooy man rabbuka maa diinuka man nabi ñett yi lañ la laaj duñ la fa laaj kenn te yowmal xiyaama benn sëriñ du fa intervenir benn sëriñ mënalu wala mënalu fa la dara sëriñ ci boppam bés pénc moom day tiit yonent ci seen bopp di de di seen responsabilité ñuy nax ay nit au nom de l'islam naan yowmal xiyaama diw mooy ramb nii diw mooy jàppale nit fan lañ ko bind ça n'existe pas yowmal xiyaama kenn du fa mënal kenn dara yàllaa ko wax ci alxuraan gëm nañ lu yàlla wax yowmal xiyaama yowmal xiyaama kenn du fa mënal kenn dara yàllaa ko wax ci alxuraan te gëm nañ lu yàlla wax naam yowmal xiyaama ku nekk bopp sa bopp allahu akbar nañu jaamu yàlla nañu moytu moytu leen ñu nax leen ci turu diine lekk seen alal bal nag lu gën a rëy lu gën a doy waar mooy nar leen diri yóbbu leen ànd ak yéen dem safara loolu seytaan loolu la waxoon dina ànd ak ñu bari au nom de la religion yóbbu leen safara moom mooy lu ñu gis nii moom mooy lu ñuy dund nii au nom de la religion aujourd'hui des gens égarés égarent des gens malheureusement des gens loin de diin à milieu de lislaam au l'islam aujourd'hui en fait euh, subhanallah égarent des milliers des milliers de personnes kon nañu dellu gaaw yeewu avant qu'il ne soit trop tard mbokk yi Serigne daal di weddi alquran yàlla mi tagg ay yonent tudd leen sëñ Moustapha si weddi ko tey naan ay yonent yàlla Suleymaan ay waxu coro rus naa sax dellu ci kàddu yooyu yonent yàlla daadama sam tëddee subhanallah yow tey ku la ne woon da nga tëddee sa njaboot ku la ne woon tey sa wéyjur dafay tëddee yow say doom ku la ne woon tey yow ku la subhanallah yow xel sax pour nangu la waa safara moo tax buñ duggee safara dañoo ne law kunna nasmaw aw naqilu ma kunna fi ashaabi sain cey bu doon dañuy dégg di utiliser suñu xel du ñu nekk biir safara kon dañ leen dégg waaye di utiliser seen xel ñan nag ñooy dëgg-dëgg jullit ñi ñu am xel ak ñi yàlla gindi mooy ñoo xam ne bu ñu déggee kàddu dañuy xool la ca rafet la ca gën a rafet ñu daal di koy jëfe alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yàlla ne ulaika alladina hadahum allah wa ulaika hum ulul albab ca suratu zumar moo ñoo xam ne dëgg la ñuy topp nit da koy topp ndax lan mooy que ni ci dëgg la nekk yowmal xiyaama nag ñii taxe yowma yanfau saadiqina sidqu mooy ñu nekk dëgg yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqin ànd leen ak di wax dëgg dëgg mooy alquran dëgg mooy lu yàlla wax dëgg mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa wax lu juyoog loolu caaxaan la lu juyoog loolu du dëgg lu juyoog loolu safara la jëme nit ñi kon mbokk yi yàlla dafa tagg yonent yàlla suleyman tagg yonent yàlla daan alayhi salaam alayhim asalaatu wasalaam ak yeneen yonent yu bari <coughs> demal ci suratul anam yàlla ne alladina amanu walam yalbisu imanahum bi dulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka xujjatuna aataynaha tilka xujjatuna aataynaha ibrahima ala qawmi narfau darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuuhan hadayna min qabl wa min durriyatihi daawuda wa sulaymana wa ayyuba wa daawuda wa suleymaana wa ayuba wa yuusa wa muusa wa haarun wa kadalika najzi lmuxsinin wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyas kullum min alsaalixin wa ismaila wa lyasa wa yunusa wa luuta wa kullan faddalna ala alaalamin yàlla tagg ñi sëñ Moustapha Sy di saaga yonti yàlla suleymaan di saaga yonti yàlla daaral islaam di saaga lislaam di saaga borom bi subhanahu wa taala di saaga alquran di saaga jullit ñépp laa ilaha illa allah muhammad rasulullah xasbuna allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir àndu ñoog moom ndax kàddu yi kàddu kufru la àndu ñoom àndu ñoog moom ci kàddu yi ndax kàddu yi kàddu nifaaq la kàddu kéefar la kàddu yéefar la kàddu naafeq la te jullit waru ko wax jullit waru ko gëm te jotaay boobu sax jullit waru fa toog xool leen ki ngeen di àndal mooy kan ku jël yoonu yàlla muy yoon alxuraan ak sunna yàlla mu ne wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoon ku jëm ci man waaye bul topp yoon ku jël mooy yoonu seytaane yi mu te nag yàlla waxoon na wa zayyana lahumu sheytaanu amaalam seytaan da leen di rafetal yoon yooyu ñu wut ci ay mbooloo waaye ñoom ñëpp seytaane lu waxoon mooy yàlla maa ngi giñ sa màggaay fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain dinaa leen diri ñoom ñëpp réeral leen yóbbu leen safara yàlla giñ ne fal xaqu wal xaq aqul la am la anna jahannama minka wa mimman tabiaka minhum ajmain dinaa feesal jahannam ci yow ak ñépp ñu la topp ñoom ñoom ñëpp safara lañ jëm yàlla nañ ci yàlla musal lii nag ñoom ñëpp seytaane lu waxoon mooy yàlla maa ngi giñ ci sa màggaay fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain dinaa leen diri ñoom ñëpp réeral leen yóbbu leen safara yàlla giñ ne fal xaqu wal xaqa aqul la am la anna jahannama minka wa mimman tabiaka minhum ajmain dinaa feesal jahannam ci yow ak ñépp ñu la top ñoom ñoom ñëpp safara lañ jëm yàlla nañ ci yàlla musal lii nag mbokk yi avertissement la yàlla meram xejul suñu kaw yàlla nañ yàlla musal ci meram waaye nag yàlla alag na dëkk ndax kàddu yu mel nii yàlla alag na ay nit ndax kàddu yu mel nii yàlla mbugal na ay nit dugal leen safara ndax kàddu yu mel nii naudu billahi subhanahu wa taala min hadihi alkalimat naudu billahi subhanahu wa taala min kulli man qaala bi mitli hadihi alkalimat wa min kulli man aamana bi mitli hadihi alkalimat naudu billahi min alsheytaani arrajim naudu billahi min min alsheytaani arrajim ñu ngi musli yàlla ci sheytaan ak képp ko ànd ak moom yàlla na yàlla